mbënd mi moom lii ma la si mën wax moy chaque année dal mom ni la chaque année mom ni la chaque année bu tawé duñuy toy tooy di toxal suñuy bagage que dem ko dik c'est partout hein, la zone Sonatel partout depuis ce matin on est là d'ailleurs on est on est en train de travailler avec. Euh, la société de Socetra qui est en train de faire les routes ici à Hambourg. Bon, vraiment, euh, qui, nous aide beaucoup. De toute façon, nous demandons à la population d'être calme et serein. Bon, ça c'est pour pouvoir identifier vraiment euh, ce qui se passe au niveau de Mbour et y apporter des solutions. Euh, état bi aussi euh, déclenché nañu euh, plan Orsec waye nak buñu sañon sañoon temps yi gën ñoo jappalé gën ñoo dimbali ndax vraiment dëkk bi dafa mag dëkk bo xamni légui matna mat 500000 habitants lu ak lu ko ëpp sax ah, lu melni bu amé aussi da ngay xawa jaxlé waye nak ñu ngi ñaan dimbal rek. ci ci état bi aussi ñu gën ñoo jàppale population bi aussi ñu leen di wax aussi ñu xaw a patient tuuti parce que affaire bi dafa xaw a doy